Je disais, je au début que c'était un rêve. Un rêve dans la mesure où les fondateurs de cette association étaient là avec nous. Élèves qui étaient inscrits au CI. Du CI au CM2, ils se sont véritablement distingués par non seulement leur caractère éducatif, mais aussi par le sens du travail. Et ceux-là qui sont là aujourd'hui, pilotés par Madame Ndeye Marem Diédhiou, et derrière elle, son staff, son équipe technique, je vous dis en toute sincérité que nous sommes émus par votre acte de sagesse et de grandeur que vous avez fait montre à notre endroit. beaucoup d'associations sont gravitées autour seulement de Pékin 7A, mais de Pékin même. Mais il est heureux aujourd'hui de non seulement vous entendre, mais aussi de vous voir en toute sincérité penser à vos jeunes frères qui sont En témoignage, quand ils sont venus vers on n'en pensait même pas. Ils ont décidé d'équiper toutes les classes de CI au en cahier, en stylo, en livre et en, je peux dire, en craie. Un an après, ils sont revenus cette année. Ils ont équipé pratiquement toutes les classes en manuel didactique, en cahier, en stylo, en livre, etc., etc. Ils nous ont permis à un moment donné de renforcer, non seulement nous avons les coins de lecture dans nos classes, mais de créer ici une bibliothèque qui est là, ouverte tous les jours, parfois même les dimanches, je suis là. En appui Quand ils sont revenus dans cette sagesse, comme quoi l'association doit être élargie et qu'elle devient non seulement l'association de Pikine 7A, mais finalement elle sera l'association de Pikine, des anciens élèves de Pikine. Ceci étant, nous avions pris acte, en leur prodiguant des conseils, qu'ils ont essayé d'explorer de part et d'autre jusqu'à arriver à ce jour où nous sommes. La fête d'aujourd'hui, elle aurait pu être une grande fête de tous les Pikinois dans le sens extrême du mot pour fêter non seulement ses élèves, mais aussi dire que nous sommes de tout cœur avec vous en prenant acte de ce lancement de l'association des anciens élèves de Pékin. L'objectif d'Amanek n'est plus à présenter aujourd'hui pour Pékin. Parce qu'avant cette journée, on a eu à faire un peu le tour de, je dirais presque toutes les écoles élémentaires de Pékin. On a rencontré personnellement les directeurs, les présidents des APE, les sept maires de Pékin, le maire de Latimbo y compris. Euh, on a aussi pu euh, rencontrer euh, ITEL, je, vais les citer personnellement euh, après, je veux dire particulièrement après pour les remercier. Donc juste Aujourd'hui, à Manep, comme euh, nous l'avons dit, le travail a que c'est en 2017 que nous sommes venus ici même dans cette directeur, qui jadis était notre enseignant ici même. Moi, j'ai fait la classe de 6e dans cette école. on est tous là. Donc, big up à vous tous. En fait, Amanef, c'est eux. Tout le travail, c'est eux qui le font. Peut-être que Man c'est moi qui me permet d'être de, devant euh, la plupart du temps. Mais tout le travail, c'est cette équipe. Donc, je vous remercie beaucoup, mes anciens camarades de classe, mes amis, mes actuels collaborateurs. Tout ce travail, c'est leur ci liggéey boobu nga xam ne Amanep tàmbali na ko ndax am na lu ngeen jotagum def loo xam ne suivre nañ ko à travers les réseaux sociaux fii si commune Pikine Nord et même à Djiddah Thiaroye Kaw nekk ay actions yoo xam ne def ngeen ko en faveur des élèves mais boo ko defalee élèves yi parents d'élèves yi nga ko defal parce que ñoom la waroon te xëy na doole maanaam matewul lépp te bu askan wi jaaxlee kii ni njëkk xalaat du ministre du directeur général du président de la république maire la xel yëpp di daj yàlla dogal na maire mooy docteuru askan wi donc bu ñu amee ci ñoo xam ne ñoo ñuy wuutu ci la ñu waroon def ñun amatuñ seen fay donc ci loolu ñu gërëm leen sant leen mais xamal leen ne leen nag yéen ñi ñuy karle te bëgguñu jàpp du ngeen ñu gën a sawar nag ndax bu dee askan wi bu jaaxlee ci ñun la ñuy ñëw pour ñu utal leen solution ngeen wuutuñu ci loolu ñu leen waroon doxal ak waxal leen ko di ñu ci utal solution jàpp leen ne fu ngeen gestoo di ngeen ñu gis seen kanam di ngeen gis seen ginnaaw di ngeen gis seen wet seen réussite wu mission mooy réussite wu maire yi mooy réussite président mooy réussite Sénégal ndax ku ne xam ne ne développement bu amee njàng moo koy lal ak xam-xam te aujourd'hui vous êtes en de semer euh, de semer les germes de ce qui va produire demain les fruits et comme ni ko fi kenn waxee léegi nii peut-être le futur président de la république mu ngi ci xale yi mais loolu du mën a am lu dul ñu fexe mettre leen ci conditions yi war la ñu soxla ci jumtukaay kir mën a jàng ñu mun leen ko yombal donc maa ngi terminé samay kàddu wax leen ne jël naa engagement lépp loo xam ne song ngeen ko jëm ci askan wi particulièrement ci ndaw ñi ci élèves yi incha allahu rabbi kenn ñu ci mën dinañ ci góor góorgóorlu suñu kéemtalaay kàttan beneen bi may terminé rek gërëm leen ci teg loolu bëriwul mooy Sénégal dafa bëri koo xam ne amaana mun nañ ko jàppale ba mu taxaw mais su taxawee day fàtte mais yéen fàttewu leen aujourd'hui ñaata élèves ñaata génération d' élèves ñoo jaar fii jaar yeneen école jaar yeneen école c' est des milliers voire des centaines de milliers ñooñ ñëpp defuñu ko yéen ko def yàlla na yàlla fay leen merci beaucoup. les anciens élèves de Pikine jaarale ko ci la présidente Ndeye Marème mag lay sant xam nga àdduna loo ci gis mobilisation ñetti maire yi li ko li ko indi puisque am na leer na ma ne am na kuy def dans la dans le département loo xamante ne war na méngóog lu mel nii invité mais ñu ne fii dañuy ñëw ñun daa am lu tax li tax mooy seen taxawaañ nit ki boo nekkee ci benn mbir da nga koy bëgg on vous a moi je vous ai reçu waaye bind naa maire rek boo demee sax ci bunt ba ngay teg courrier ba rek pare ca ba pare dugg ci biir département bi naan nag bind naa ko gisuma ko danga koy topp ñi ñëw nañ sama bureau lu mot quatre fois waaye bu ñu xew xewlee nag damay ñëw ci li ñuy dox nekk loo xamante ne ñun suñu yëf la man ci fi may taxaw rek mooy votre logo ce qui semble vous déterminer vous identifier et tracer le chemin les ambitions et les missions yi nga xamante ne moom ngeen assigné seen bopp j'ai vu dans votre logo une main boo xamante ne tey dafa jàpp un cœur maanaam ñëpp xam nañ loxo moom pour liggéey la rek Mais le cœur, c'est pour aimer, adorer, ce qui nous permet de choisir là où on doit aujourd'hui agir. Vous avez choisi d'agir dans la recherche et la quête perpétuelle et permanente di savoir. mooy xam-xam ce qui symbolise mbaxana boobu ngeen teg ci kaw mu nekk xam-xam ci ñooñu di wut xam-xam nag da ngeen a tàmbale fañ ko war a tàmbalee mooy ndaw ñi ndaw mi nga xamante ne foofu la ñuy tàmbalee wut xam-xam ngeen ñëw jàppale leen pour jumtukaay yi leen war pour ñoom ñu mën a am xam-xam ngeen yombalal ko seen way wayjur man jàpp naa ne loolu suñu mission la ñun maire kon képp ku koy def ñun ngay jàppale yéen jàppale leen ñu ñun ñu ñun ñoo ñun jàppale ñun jàppale leen yéen a ñuy jàppale pour ñun mission bi ñu sas population bi jox ñu ko ñu mattale ko kon loolu du ngeen ñu ci jiitu bu ngeen ñu wooyee ñu nekk ci kon demander les maires ñu engagé wu ci lii non yéen kay lañ bëgg a wax ngeen resté ci lii mais sunu engagement moom yàgg na ba ñu engagé woo ci lii mooy ba ñu engagé woo laaj population bi ñu dénk ñu yéen nag yéen a choisir accompagner maire yi liñ leen di laaj mooy ngeen inscrire dans la durée puisque nag dinañ ko soxla gërëm leen ci seen fidélité seen loyauté nit ñu bari jàngee nañu fi ñun ñii ñëpp. mën nañu wax ay anciens élèves de Pikine c'est vrai que man nag Limaamu Laay laa jànge waaye gëm naa ne ñu bari bari fii nii ay anciens élèves de Pikine lañ kon yéen ñi ngeen boot bari na de fexe leen ba boole ci ñëpp ñëpp ñëw jàpp ci puisque ku ci nekk war nga ca mën a def dara kon yéen maa ngi leen di sant di leen di gërëm bu baax. lancement amical des anciens élèves de Pikine man école 3 laa jàngee ba mu jeex boobu j'étais élève noonu. voilà amee en kon ancien élève la nga ancien élève la ma jóge fi dem te am naa sama carte jënd naa statut naa ko sax alors ma jóge fa dem sud ci ñu ko tuddee Chérif Mouhamadou Habib Tidiane yi ñu doon dirigé foyer bi man ci laa bokk fan maa ko jiite woon Chérif ñu tuddee ko Chérif ñu def fa cérémonie de parrainage surtout devenir Chérif Mouhamadou Tidiane yi ma jóge fa dem lycée Limamoulaye fa la amee bac dem université kon ba tey élève la foofu la statut élève yam après ñu am statut étudiant kon ki jàngee école 3 ba lycée Pape Gorgui Ndogou Isaaxa ñi mos lycée yi Pikine fii collège yeeg CG yeeg yëpp yëpp ancien ancien élève lañ Badiane ñii ñi fi toog yëpp ma bëgg ñu xam ne benn association am na nañ ko fédéré ñëpp bokk ci li ma bëgg mooy seen siège fa la ne école 7 mooy siège amical des anciens élèves du département de Piquet école 7A en face Dominique ci près de l'inspection de l'éducation et de la formation de Pikine fii mais à Pikine Nord hein c'est pas à Pikine Ouest ni à Pikine Est d'accord c'est à Pikine Nord c'est le siège de cette amicale waxuma ak yéen ñi fi toog nii mais ñi seetaan affaire bi ëllëg ñooñu laay wax ku bokk ancien élève ñëwal jënd sa carte membre même boo ci deful leneen sa carte membre bi ngay fay rek baax le lancement de l'amicale des anciens élèves du département de Pikine Amanet la présidente Ndeye Mariam Diédhiou elle est très dynamique et très férue en communication léegi-léegi ba may ñëw sama jabar ma ne ah yow ma defoon programme bi ngoon la ma ne ko bu ngoon bi bokkul ak bi lii mooy anciens élèves yi ñi fi ñëwoon mu ne ah maa ngi koy gis ci Facebook c'est ça aujourd'hui on a ces moyens-là les médias c'est pas seulement TFM Walfadjri les réseaux sociaux moo aujourd'hui c'est portatif sa téléphone smartphone ngay jël lii génn ci télé bi da nga ko ciy gis revue de presse da ko ciy gis activité bu mu munti doon ko ciy gis utiliser ça partager multiplier tëmbal leen ci biir statu yi affaire bi siw aujourd'hui na gars yi ñëw jënd carte membre ama pour doole bi jëm ci kanam lancement la ñu wax bu lancement bi nag carte yi ñaata lay jox. carte yi am na 2000 francs am na 10 am na 25 000 dafa am silver premium ak gold donc am na am carte. waaw ñun maire yi moom gold lañ jënd wala silver. waaw ñun ñëpp ay golden maire lañu. ay golden lañu. <laughs> waaw waaw Isaaxa jënd nga sa bos. bien sûr ñoom ñëpp jënd man jën naa. ñoom ñëpp am <laughs> ku ci nekk 50 000 la fay nag na leer. waaw <laughs> léegi nag ñeneen yi carte am na bu sax bu 2000. ngir yàlla ak yonent bi ngir yàlla ak yonent bi ñëw leen jënd benn carte rek dem bu leen ko xeeb ancien élèves yi c'est des milliers d'élèves yu jaar fi pa bu am bijaaw màggat am cent ans te musa jànge Pikine ci nga bokk déggal message bi nga daw si école set en face Dominique ci wetu inspection bi nga jënd sa carte 2000 francs wala 5000 nga joxe ko appel boobu su ko ñëpp defee ñëpp daw si ñëw am ama nepp dina am les moyens de sa politique loolu laa leen di ñaanal